plutôt seen seen seen marche bi. nee na mi gis ay autorité ay kiiwam um, ay supérieur um, mhm. loolu moom am ci réew moo tax ma lay wax lépp mhm. lu ñu jël comme dogal jógewul ci ñoom. ñoom ci boppam ñoom ñoo gën a nekk sous pression. préfet boo xamante ni département am ñun nee dañ fay am benn manifestation day nekk sous pression parce que bu doon moom moom rek rek day appliquer la loi. préfet bu Dakar moo dafay dem xooli ay supérieur hiérarchique am ñëwaat ndaxte dafa ñëw wax ñu pour ñu modifier euh, li nga xamante ni moom mooy itinéraire bi ñun fekk si nañ ko ci mais même bi ñu ko ci fekk see mu ne dangal ma kii ñëw ñëw fekk si. d'accord alors xam nga yooyu moo dul yëfi nit. Uh-huh. Hmm. Pamata alors bu ñu gisee discours le chef de l'État bu mu def wax ne du bàyyi dëkk bi kenn taal ko ñu gis aussi le ministre de l'intérieur daal di tenir beneen discours boo xamante ne mooy lal taxaw tembe nar jàmmaloo képp koo xam ne nga indi attroupement te loolu facilité wul médiation bi nga xam ne nit ñaa ngi koy amal ci suuf. Mhm. waaw mais xam nga bu ñu nee dëkk bi dañ koy taal duñ ko taal mais ni dëkk bi gaz la man daf may jaaxal parce que de sénégalais yëpp la du président de la République seulement loolu yaakaar naa ne Sénégal bi ñun ñëpp ko bokk je crois que ni euh, ci ay actes ngay posé nit ñi xam ni que vraiment da nga nekk ci volonté de de pacifier mais mënuñu ni euh, Issa nee personnes nañu nañu de personnes ñu jàpp leen. Euh, tout simplement waaw à Mbacké absolument ñu jàpp leen ci benn manifestation boo xamante dañ dañ ko interdit ñoom ñu participer si man damay fàttaliku juin bi passé ba ñu jàpp Déthié Fall signalé woon nañ plus de 82 personnes. Mhm. bañ demee ci tribunal ba. 82 personnes ak li may li may li li ma bëgg wax foofu mooy que souvent manifestation bii am ñi nga xamante ni ñoo ñëw di yàq. ak ñu ñuy jàpp day wute. dañuy jël ay innocent yoo xamante ne parce que dañuy nekk ci benn logique boo xamante ne dañuy def raf euh, voilà euh, rafle rek lu ñu gis rek dañuy jël ñu dugg ak seen oto. et à chaque fois loolu mooy am te loolu yaakaar naa warul nekk réew boo xamante ni réewu la tey euh, lii ñuy dund yëpp ay conséquences la nañu wax lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy cause bi wax nañ ko mooy interdiction boo xamante ni ñëpp gis nañu ni amul woon benn benn motivation bu suffisante pour ñu mën a interdire manifestation ba donc tey bu ñu nekkee ci logique gu fexe ba jàmm sax ci réew mi ñoom ñooy teg. li nga xamante ne mooy yoon parce que jàmm ci kaw yoon lay tegu mais mënoo nekk ci réew boo xamante ne wax naa ko léegi ñu jàppoon fi 82 personnes jàppoon fi Déthié ci buntu siège ni ko da participer ci manifestation boobu nekk na euh, distance bi diggante euh, minimum nekk na euh, à 2 voire 3 kilomètres ñu nekk ci réew boo xamante gis nañ fi Ahmed Aïdara nekk à 10 kilomètres ñu ko da participer ci manifestation boo xamante ne xaar ci moom nekkul ay affaire de dinañ fexe ba réew mi bañ a tàkk mais que li tax ñu fal ko te mu prêté serment mooy que fexe ba sàmmonteeg li nga xamante ne mooy constitution mu necc mhm. mais le ay wax yooyu je crois que verbiage rek amul benn benn benn utilité parce que tey

immeuble. alors euh, euh, Mame euh, waaw par rapport ak loolu xam nga man moom yàgg naa koo wax di ko waxaat le président Macky Sall sénégalais yi dañoo yéex a jóg ci ay mbiram. ba benn instant. mu jàpp mais bien sûr. <laughs> wala li ba mu déposé ba mu déposé patrimoine nañu am na huit milliards. ci lañ ko waroon ne ni kii moom ah du waajañ doon xaar. kii nekkul opposant bi doon wax bër démb ak bërki démb dinaan dañu war a leeral parce que dama jàpp ne Sénégal fii mënuloo fi nekk ci ab gouvernement def fa quatre-vingt-quatorze mois génn nekk milliardaire donc booba la ñu waroon a jóg ci ay mbiram defuñu ko ba gis nañ li fi jot a xew yëpp pratiquement pouvoir bi dañ ko teg ci jaay doole noonu la ñuy euh, euh, euh, génnee Nafi Ngom Keïta nag ba mu jiite woon te mandaam jeexul noonu la ñu rajee Ousmane Sonko noonu la ñu rajee xalifa Sall génne ko assemblée nationale dindi foqati maire dakaar bi nga xamante ni population yi ñoo ko ko fal. loolu yëpp ci premier mandat bi la xew ba mu xewee nag sénégalais yi yëngatuwuñu président Macky Sall ne gagné na élection yi euh, président conseil constitutionnel toog di ko tagg moom ak ay jabaram mu ne lii moom ab buur rek lañ koy defal depuis boobu nag boo seetloo doxalinu buur. day doxee. kon on est tous mais ñun ñëpp ñooy responsable bien sûr parce que xam nga c'est bon de toutes les façons nekkuñu sax di pour mesurer responsabilité yooyu mais dama ne ba ñu waree jóg. ci le mhm. président Macky Sall dafa yeex. parce que li nga xamante ni mooy xew ci dëkk bi du doo dem benn benn benn dëkk boo xamante ni danaan démocratie la ngay gis mu fay xew da ngay dem sax dëkk bu mel ni Maroc nga xamante ne ni ab buur moo fa am. ni régime bii di doxalee moom du ko doxalee parce que Sénégal ngay gis léegi ñu ne la euh, yow kat jàpp nañu la parce que da nga doon waaj a def dara maanaam avant ngay commettre délit bi wala nga euh, mënuñu wax ne sax da nga koy commettre ji mais dañu ne da ngay jóg parce que lii nga bëgg a defi ji ñu jàpp la. intention sax mën nañ ci jàpp intention maanaam comme ci euh, ni ñuy <laughs> ni ñuy arbitrer football yow tu avais intention de commettre une faute donc dañ lay jox carton. c'est ce qui se passe parce que bu nekkee. ay kilifa dañu jóge Dakar wala fu mu munti doon di dem Mbàkke ñëw ba ci à l'entrée nga téye leen parce que amuñu droit dem ci ab manifestation boo xamante ñu ne waruñu dem ci manifestation boo xam ne dañ ko tere loolu fan lañ ko teg yow kay da nga naan manifestation bi am na autorisé wu ma ko ku ma si jàpp dama lay toppee participation à une manifestation noonu autorisée mais mënuloo ko jàpp parce que dafa am intention loolu ci Sénégal kese lañu ko gis Issa wax na léegi ñi nga xamante nii ñëpp jàpp nañu leen te ñu xaw a mat soixante-dix ana naka yow ngay dem jàpp plusieurs personnes yu toll noonu nga leen di toppee pratiquement les mêmes choses fait chef d'inculpation parce que amul sens ñii dañ leen a fekk ñu yor xeer xëy na ñii dañ leen a fekk ñu nekk ci ab oto xëy na te sax pour dire que quelque part ñoom dañ doon jàpp ba jàppaale ñoo xamante ni waruñu leen a jàpp démb la ñu def tribunal la ñu dem tribunal si les jeunes yi ñu jàppee woon cité kër góor gi liñ lay wax mooy ñii ay maçon lañu dañ fa jaaroon. Mhm. am ay travaux yu ñuy def yi. foofu fa nekk nekk cité bu nekk en chantier sax. c'est exactement la même chose tamit la ñu def Mbàkke dañoo jàpp ñi leen neex. Mhm. parce que tey élèves yu Mbàkke yi suñu génnee ne dañuy ñaxtu c'est parce que dañoo jàpp ay élèves te ñooñu nee nañ bañ leen di jàpp demuñu woon foofu pour manifester mais dañu demoon pour jàngi ji. donc mu mel ni rek ñoom dañoo gaare seen oto ne il faut mu fees léegi ku ñu jàpp rek dañu la siy dugal bu ñu paree xool lan lañ leen di toppee parce que bu ñu nee dañu exploité ay ay ay ay ay mais loolu mais loolu c'est du n'importe quoi parce que yow ki nga xamante ne nii moom nga filmer mu wax benn affaire nga këf ci benn mot génne ko ci contexte bi mais loolu mun nga ko toppee n'importe quel sénégalais. loolu la ñuy toppee sax Hannibal Djim moom si dañ ko jàpp dem di exploiter ay vidéo yu mu defoon ci Facebook. loolu mun loolu nga ko loolu mun nga ko toppee n'importe quel sénégalais. léegi nag li nga xamante ne nii moo am parce que bu ñu demee ba nga xamante ne nii ñi war a respecter ñi war a respecter lu la loi maanaam ñi nga xamante ni dañ leen a jox ay ndomba tànk pour ñu fexe ba sénégalais yëpp ñu tegu ci yoon bu nekkee ñooñu ñooy commencer par jargal ci yoon. il n'est pas question ñu koy jéem a appliquer si yeneen sénégalais pour pourquoi parce que euh, euh, li nga xamante ni moo indi coow li yëpp mooy le préfet là li def preuve d'irresponsabilité xam nga mënoon na sax quelque part mu ne comme Macky le président de la l'APR mu ngi Thiès di def ay activités am yéen da ngeen bëgg a organiser meeting awma suffisamment de force de l'ordre pour garantir ça xam nga mënoon na wax loolu bu boobaa sax nit ñi. dinañu nekk di am lu ñu laam-laamee. mais man bi dama yokkale sax les organisateurs dem la ñuy invité kii nga xam ne mooy euh, sëñ Cheikh Thioro. Mm-hmm. mais nee nañu ba léegi recevoir ñoom jotaguñu notification bi nga xam ne da leen wan ni. que euh, l'interdiction a été notifiée aux organisateurs maanaam ñu recevoir ñu këyit bu leen wan ni manifestation bi c'est interdit ci groupe WhatsApp lañ ko yëgee. ci groupe WhatsApp comme nga loolu déjà rek manque de respect ñi la parce que préfet bu nekkee ci ab gox c'est parce que gox boobu ay nit ñoo fa ne bu nekkoon dëkk bu mu nekk ay xar kese ñoo fa nekk kenn du ko woowee préfet berger lañu koy woowee fa mu ne bu koy woowee titre boobu di ko fay weer di ko jox traitement bu baax c'est parce que ay nit ñoo fa nekk te nit ñoo ñu daf leen a war normal respecter leen bu ñu nee par exemple dañu war a organiser une waxuma sax marche ñii marche la ñu bëgg a def. Mhm. maanaam jóge point dem point. Mhm. ñeneen ñi di organiser manifestation maanaam génn ñaxtu. Aliou Sall naan na suñ pétrole dañuy organiser manifestation ñaxtu xam nga bu doon ñaari cas de figure sax mën nga wax ne xëy na préfet war na mën a wut ay excuse pour ne du ko def parce que ñii ils sont dans la contestation mais loo xamante ni meeting politique la. pour un parti reconnu par la constitution le le le ministère de l' ñoo ñu bëgg a def seen activité politique comme ni leen ko article quatre vingt cinq bu constitution maye. Mhm. nga ne noono non lii ñaari ko signé ñetti nit ko waroon a signé ba pare wax. article boo xamante ni soo fa demee. li préfet non non article bu mu wax c'est pas obsolète de article bu mu wax boo ci demee doo fa fekk li préfet wax article 96 bu mu wax code pénal mhm. soo fa demee doo fa fekk li préfet wax ba bind ko entre guillemets ci euh, mesure d'interdiction bi mhm. maanaam en définitive mun naa wax ne lu mu teree manifestation boobu am ci boppam la jóge daf ko inventé. kon ça a été inventé ça a été inventé article 96 waxul loolu sénégalais yëpp mën dem vérifier ko wax nañ ko fi penco wax nañ ko fi keppaar gi dañ ko euh, maa ngi dégg dem Amadou Ba mu koy répété mais dama koy réitéré na sénégalais yi dem xool article 96 code pénal ndax li préfet wax ne moo tax mu arrêté. mu interdire manifestation ba ndax muy article boobu du duñ ko ci gis. d'accord Issa. oui euh, ci kaaw Mohamed Njim euh, Mohamed Jim autant pour moi Mohamed Samba Jim sax euh, ñu di ko wax Hannibal moom nag il est poursuivi avec Copper Express et X. des chefs de financement d'activités de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves, complot contre l'autorité de l'État, acte de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique loolu di loo xam ne moom lañ ko toppee keneen ki muy Daouda Kaloga ñu di ko wax jaaji moom itam il est inculpé pour offense au chef de l'État acte de manœuvre acte et, et, manœuvre de nature la sécurité publique association de malfaiteurs euh, yooyu di yuñ ko toppee faux usage de faux dans un réquisitoire donc euh, Mohamed Hannibal Djim. moom moom de mandat de dépôt. il est poursuivi et coffre express donc loolu itam nekk loo xam ne. Euh, <laughs> luñ parce que moom yu bëri moom moo ko initié. donc Daouda est que buñ déggee li nga xam ne moom la wax euh, nga xam ne seen avocat moo ko wax est que mënuñu ne kon dafa am luñ viser comme ni ko ñenn ñi di waxee parce que buñ nee il est poursuivi et avec Copper Express euh, est-ce que amul leneen luñ ci visé. mais gis nga euh, le camarade Hannibal Hannibal Djim qui est membre du FRAPP bi ñu ko njëkkee euh, interpellé li ñu njëkk a wax mooy dañ ne dafa am ay publications yu mu def ci paasam mais waxuñu ko précisément yenn publication quoi gis nga procédé bi ñun tàmm nañ ko 2019 par exemple fii lañ arrêté Guy Marius Sagna à la suite d'une conférence de presse boo xamante ñun waa FRAPP ñun ñoo ko defoon Marius n'était pas présent dans la salle. Mm -hmm. et puis texte liminaire bi bind ko partagé wu ko ci page par rapport justement à la France qui menaçait donc d'actes terroristes de Sénégal euh, ci euh, affaire pétrole bi ñi arrêté ko mais j'étais avec lui à la section de recherche dañ ko arrêté ba pare amuñu infraction bi ñu ko notifié lui aussi question bi ñu ko mëntu posé mu ne leen ban infraction laa def donc dañ lay arrêté ba pare dem di wuti ils vont faire leur marché sur ta page affaire pour dajale pour tabax benn infraction je me am na un jour le capitaine capitaine de la gendarmerie enquêteur à la section de recherche à un moment donné dafa dem ba nga xamante ni exprimer son son dépit il a clairement di on ne me demande pas d'enquêter on me demande de construire une infraction nii te loolu noonu construire une infraction de construire une infraction 2019 te loolu moom mooy daw ba léegi nii Hannibal bi ñu ko jàppee comme li ma wax li ñu njëkk a wax dañ mujj ba bàyyi loolu noonu di wër parce que enquêteur bu ñu lay déglu mhm. du la déglu en continu question yi ñu lay posé dafa yor question yu jógewul ci ñoom dañ lay déglu ba mu yàgg ñu génn dem wuyu téléphone ñëw euh, indi la yeneen question te ni ñu formuler question yi dafa lay wóor ni ñu ngi koy jéem a orienté ci ñoom infraction bi nga xamante ni moom lañ bëgg a tabax pour euh, pour pour, pour charger la ko quoi tey Copper Express c'est une entreprise légalement constituée Kopar Express yaa mais léegi kon nañ dem topp ñeneen ñëpp ñi nga xamante ni mës nañ def levée de fonds au niveau de euh, Kopar Express. Ah, am na benn Kopar Express boo xamante ni mi ngi nekk. Euh, en en cours mhm. boo xamante ni ñi ko mooy les militants d'un parti boo xam dañ jàpp ne war nañ jëndal seen seen. Euh, seen leader lii di oto. léegi nañ dem arrêté Kopar Express boobu ñeneen ñi mës a def Kopar Express ak yeneen plateforme de fundraising yëpp ñi dem attaqué leen xam nga li xew ci dëkk bi moom mooy li nga xamante ni mënut a jur jàmm moo tax ñiy woote jàmm. ñuy woote jàmm munoo fekk nit di dóor nit mu yuuxu nga ne pour jàmm am yow mii di yuuxu noppil nañu wax dëgg ki nga xamante moom mooy Macky Sall gis nga maam Biram euh, li nga xamante mooy motif yi kii euh, joxe lu préfet la ci boppam de il agit sous la dictée de Antoine Diome qui agit sous la dictée de Macky Sall lu mu lu ñu def réeroo wuñ ci ak Macky Sall Macky moom moo indi situation bi ci dëkk bi te lépp lenn waralu ko du troisième candidature bi rek moom moo ko waral. raafle yi ñuy def nii ci coordonné ñoom. arrêté ñu mën a wootante ni ne jëlal décision bi def prison yóbbu ay euh, Hannibal Djim dina yóbbu ñeneen parce que actuellement déjà au niveau de notre organisation FRAPP identifié na ñett ñoo xamante ni ñoom seen renseignement yi ñu ngi leen di traqué di jéem a di jënti seen adresse ak yooyu benn Taleb Sow wax nañ ko fi Fatima Mbeng ak li euh, euh, nga xam ne Aline Badro Mboup FRAPP ñi ñi koy menacé waa APR waa benn bokk yaakaar Tivaouane di ko menacé ka envoyé ay texte de menace ne dañuy taal këram xam nañ sa kër dañuy taal sa kër ay nga gis ay waa APR yoo xam dañuy taxaw bi wax appel appel au meurtre tel leader politique dañ ko war a rey dañ ko war a assassiner ngay gis un animateur d'une émission. Euh, de télé c'était la place wax ne carrément. benn nit benn nit. waaw <laughs> non bon mais mais c'est grave bu nit bu dee moom moo xañ réew mi kii dañ ko war a rey. kooku ñu koy wër ba léegi amul dara amul. yaa ngi dégg ba pare nag maintenant jël seen projecteur yëpp braqué ci réseaux sociaux yi dangay wax benn affaire ñu génnee ko de son contexte ñëw à de la construire une fra une infraction. chargé la ko ba pare jël la euh, denc la euh, prison. loolu nag lañ ne bu fekkante ne yaakaar moom mooy dissuader nit ñi moom mooy tax ñoom seen projet de troisième candidature bi jàll Macky Sall bokkoo Macky Sall 2024 mooy sa terminus ci bu lay neex nag quoi parce que li nga doon wax naa li amoon mars 2021 dootu amati li taxoon ba mars 2021 am te yaa ngi waat ci tànk yi yaa ngi defaat sa rafle préventive yi nga doon def ak yeneen yeneen agression yi ngay def. deux bu amaatee deuxième vague bu amaatee yow doo egg 2024 te loolu il faut nga xam ko te xam nga ko bu baax a baax a baax. ngeen compté 113 personnes yoo xam ne ñoom ngeen tuddee ay détenus politiques mooy kayit gi ma tiim nii 69 yoo xam ne ñoo nekk Diourbel 41 Rebeuss kenn nekk camp pénal 2 nekk ci commissariat central euh, loolu di loo xam ne moom la ñu wax ci ay détenus politiques est-ce que jàpp da nga jàpp ne euh, ñoom ñii ñëpp en tout cas lépp lu ñu leen di toppee wàllum politique rek la defuñu dara. mais loolu la mais parce que dañu exprimer une opinion politique soit par l'acte soit par le discours yaa ngi dégg tey itam moo tax mën a jeexagul liste bi jeexagul de. parce que arrestation yi bu dee lañu arrêté dafay continuer emprisonnement yi dafay continuer parce que Macky Sall duñ ko bàyyi moom moom mu téye agenda politique Sénégal moom moo xam kañ la ñuy euh, euh, kañ la ñuy xam kan moo nekk candidat kan moo nekkul candidat parce que ñun duñ ko xaar dañ ko anticiper moom moo tax tey au niveau du FRAPP déjà nous sommes dans la plateforme jàmm gën Euh, troisième mandat mhm. mu commencé def ay contacts avec euh, certaines organisations politiques parce que à la base ay organisations de la société civile ñoo ma constitué nous de côté FRAPP ñu ngi def ay contacts on a été voir des personnalités politiques parce que il faut que rapidement on crée ce, euh, ce rapport de force là mun parce que Macky du déclaré ne moom candidat kon da ngeen bëgg a def front commun kon ñu ko bi gis nañ ko partout à nga gis ñu def seen kii ne Macky Sall suñu candidat à ak feneen ak feneen à la à lay wax ni ah. suma parti kat. sama ñoom ñoo demandé à que ma nekk. parce que normalement bu ñu eggoon ci euh, barrière